ورضي الله عن جميع المقربين وتابعيهم من أصحاب اليمين من الأولين والآخرين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وألا آله حق قدره ومقداره العظيم وأتم الحج والأمرة لله لن يدول سنو تفسير رن يجوك كتي وداوبه ci ndigalu kilifa yépp nag di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ñu sàmmal ñu sunuy kilifa aaral ñu leen sàmmal ñu sunu nekk ku ñu yilif aaral ñu ko ci barke boroom ëtt bi nga xam ni mooy sunu naanuwaay ci kër Seydil Xaaji Malik yàlla nañ fi yàgg di daje di naan yàlla ni wa atimul xajja bu ngeen armalee aj ba dugg ci wal umrata wala ngeen armal umra ba dugg ci na ngeen ko mottalee lillahi te yàlla rek tax ñu ni yamul ci aj ak umra rekk bépp jaamu yàlla boo xam ni bi dugg nga ci mottali ko ba mu mat dalay war te nga def ko te yàlla kese tax ngistal du ko waral ndéggtal di ko waral li tax mu tudd ñaar yi mooy li bari liy royaat yàq di dugg ci ñoom ak ci yi ci des moo tax boo leen yàqee wa atimul xajja wal umrata ja mooy waral danga ko war a fay fa in bu fekkee dañ leen a karante ba mënu leen ko matal bu ngeen ci armaloon bu quarante ñëwee na ngeen def taxallul fa man kaana ki armal aj ixsaar amul gis nga jàng baax na gaa man daje naa ko ma ne xeet benn la e, xeet yu tamato rek moo am ma ko déet yàlla benn aaya tudd na ci ñaari xeet yu de xeet yul ixsaar bokkul ak hadiyu tamattu hadiyul ihsaar daa am lu la quarante ba mënuloo àgg ci mahallul xajji muy xurum ja fekk nga jiitaloon hadiyu dañ la ni hadiyu boobu yabal ko ndax hadiyan baaligal kaabati ja moo tax kon yabal ko ba mu ag muna wala makka nga dora def tahallul waye amna lenen lo xamni ihsar amul dem nga ba ci aj gi waaye li ma dañ lay al almaxiitu bil adwi walau bin nasdi bu maridan danga nekk ku feebar ba mu waral nga war a sol mbaxane wala nga war a muur sa bopp aw bihi azan min rësihi wala nga am ay lor yu nekk ci sa bopp ay teeñ ba nga wara a ba taxee nga watu walla nga sol mbaxane fa da joxe li ñuy wax fidya bokkul ak hadiyu fidya nag min siyaamin ci nga woor ñetti fan jeex na aw sadaqatin wala nga leel juróom benni miskin miskin bu nekk nga jox ko ñaari mudd aw nusukin wala nga rey gàtt mais du tudd xët yu boobu ngay rendi fit ya tudd ndax azan moo waral lañ tere woon ci xaj ci lu su al maxiit wala xalqu rësi wala imaatatul aza am na yeneen yu koy waral lu dul loolu wew yi day miti nga nga dagg ko ah dindi ko ngir bañ lor ga la ngay joxe te koy rendi tuddatul hëd yu fit yële tudd day remplacer ñaar yële mais alal ixtiyaar yi nag wala neexee nga def sadaqa ست مساكين ولا صيام ثلاثة أيام ولا ندف نسوك شاتل فأعلى ما على التخيير بلا نخ ندف هل يبي لكي ورال موي الإحصار ولا التماتع دينا نتي mais xëd yu la koy waral bokk ak liy waral fidya ak dañ la naan lii bu manqué xëd koy jàng lii bu manqué fidya moo koy jam bu ñaar yëpp amee ñaar yëpp ngay def ibaadaat yi seen arab ngay xam boo ko xamee dinañ la nga ni loolu mooy leen dinañ la ko expliquer bu ñu egsee ci faman tamatta aja dinaa la wax lan mooy tamatto mais fi mu toll ñu ngi tollu ci ixsaar ak hëdiyom bi ñu paree mamnuatil ihram ak ya nga ca xam ni fit ya moo ci war am na ca yoo xam ni ci mamnuat ijaza moo ca war loolu it lu ñuy ray la li ci sunu njàng ci aaya bi ñun taalibe yi moo fas moo di pas-pas bu taalibe fas gis nga moog sëriñam ay toog fas ko mais fasu koog sëriñam yàlla la ko fasal kon li ko war mooy mu matal ko ni ki nga xam ni wa atimul xajja wal umrata lillahi li nga fasante ak sa sëriñ yàlla tax nga war ko jëf ci xadra bi matal ko lillahi lañ la wax kooku lañ ni na joxe hadiya فمن لم يجد بتخير لون بشرط بموي عدم وجدان شات موي ورا الصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم يلني كي دف تمتع تامل هديو نور فكي فن yo xamni ni ñetti ya ci bir aj ga la koy def wu deme ba manu la woor lu ayyamu tashriq tashriqi ci biir aj ga mu woor ayaamu tashri tashriq ba'd tahallul al asrar lay do ayyamu tashriq moy ñetti fani munaa te booba fekk na mu def ak taxallulul asgar mais fil xajji ji ki yëg ni tamattu la def te amul hët yu da koy jiital yooyu moo gën boobu bu la yële rëccee lañ la ko may wa sabaatan boo pare nga woor juróom ñaari fan ida rajaatum bu ngeen jógee muna ba ñibbi màkka wala boo jógee màkka ba ñibbi si Sénégal biir màkka boo jógee arafa ah, boo jógee muna ba dem màkka rek man nga ko fa defe ida rajaatum ila makka aw ila baladikum boo ko mën la defe foofa zalika yàlla nee na atte bii gis nga ida rajaatum mu ni tilka ashratun kaamila yàlla day bañ mu ni salaasata ayaamin fi lxajji wa sabatan ida rajaatum ab mbayeen jóge fële ni def ni bu ma mënee ñett yi day na du ma def juróom-ñaar yi wala bu ma ko defulee juróom-ñaar yi laay def yàlla ni bolel yoya motax man la fa siyaamu na fukki fan yo xamni salasata ayamin fi yi fil wa sabatan idha raja'tum yàlla waxat ni tilka ashratun kamila dalika mu yekle nak ni du ñëpp ñi armal ñi omra ci ayyamul hajj ca ak mooma du ñëpp ñooy mutamati bi lii war li man la li ko waral ci njalbin gi mooy ki waroon a tukki ñaari tukki jël benn bi def ko ngir ñaar yi li man lam yakun ahlahu xaadiril masjidil xaraami te ba mu demee mu jiital umra wala mu booleleen ndax ci atet mutamati bii la ñuy dugal ki def xiraan bu fekkee armal nga te jotagul nag Malik nee danga dangaa def lu ñu sib mais li la war ci aj yëpp war na la de ku dof doflu moo xam miiqa mahalli la wala waxti nga toog fii xëy armal aj wa atimul xajja wal umrata ja day tegu ci sa kaw mbubb yi ngay sol day am pénalité yu la ciy dugg wala les jigéen ainsi de suite yàq nga armal aj googu te aj li ci miti mooy boo ko yàqee da koy mottali ba pare door ko fay déwén kenn mënu koo fay ren boo ko yàqee zul hijja bi da ko ciy boole waaw mais ci la baada la ci boo xam ne bii dañ ko ci dugal ka xajjin ka ka ka chehrin mais boo gisee ni muy demee nga xam ni fukk ya dong la ñu soxla téere yeneen yi dañuy wax dul xijja yëpp mais ashru dul hijja la ñuy booleeg ñaar yële mooy ashurul xaj yi ashurul xaj yi chehraani la wa ashratu ayaamin waaye ci ashhur maalumaat yi muy nekk mooy shawal zul qaada zul xijja ci la bokk déedéet foofa dafa fekk arafa weesu te alxajju arafa alxaj yu moom fa nga cey mujje mën a armale aj ren mooy guddig arafa guddig arafa nag boo fa àggee donte ñaari minute des ci fajar di jot nga armal am nga aj yeneen yële rëcc yëpp mën nga ko defaraat mais arafa ba bu jeexee déwénati rek alxajju arafa mottali yi nga xam ni duggoon nga ci xabla arafa nag lañ la ni salaasatu ayaamin fil xajjija bu la fani aj ya yi dañ la naan bu la fani aj ya fani aj ya lañ ko tudde weer bi du jeex alxajju du ñoom ñëpp ci d'accord yonent bee ko wax daf ne alxajju arafa te bu arafa weesoo dootoo mën a dugg ci aj gi kon moo tax ñoom dañuy wax ni ñetti weer yi dañuy tudd ñetti weer yi mais weer woowa bu arafa weesoo dootoo armal laa la yëgal kon jarul jël yëpp majaas lañ ko tudde shahr rek mais du lépp xukman arabiyan la al alquran yore te alxukmul arabi day jëfandikoo majaas mooy tasmiyatu shay bismi baadihi am déet dangaa gis xam naa la alaaji nag dangaa gis ku la ni baada arafa mën nañoo arafa non non non non dama la xam ci daara ji la ñu nekk dañuy jàng jun ñëpp waaw jazakallahu xayran ñetti fan yan saaminu zil xijja ci la ñu war a génn dem mu naa loolu yaa ngi ci biir aj gi arafa laa la wax laylatu arafa bu weesoo fa la yem armal man faatahu arafa al wuquufu bi arafa at moomu mënatu cee aj laa la wax parce que arafa boobu bu taxaw nan jàng non non ñu ngi ci jàng dama bëgg nga xam ni ki jóge Sénégal déglu ma rek ki jóge Sénégal jet privé la am bis ba ñuy taxaw Arafa mu fexe ba avion bi wàcce ko Arafa mu armal fekk cinq minutes des fajar jot am na aj mais bu fajar jotee mu door fa àgg déwénati ndax ku arafa rëcc àgg rëcc na la madame fa man yàlla nee na képp koo xam ni farada waral na boppam fii inna ci biir weer yooya ni dina aj ren mooy ki ko yéene ba dugg na taqoog li nga xam ni mooy adaabul xajj mooy am wegeel teet lépp luy bànneexu jigéen fala rafasa sëy du fa am kenn du ca wax waxi mbeej wala fusuuqa kenn du fa defu kàccoor guy waral bàkkaar wala jidaala werante it amul war nekk fil xaj ci jamonoy aj doonte ki ngay werenteel du kuy aji ni yow ku la luyee la amoo droit xuloog ki la jox avion bi doo am droit xuloog ka jox kaar yi bu ñu demee dëkk ba donc al mu euh, euh, euh, kaar yi mooy ki la ki lay luyee alxaadim bi ndaan yang fay dajal bul xuloog ñoom waxuma ki nga àndal bi aj na waajal gee doy doyul maanaam buñ la waajalee pour ngay dem Makka dañ lay yégal namu meloon nga xam ni coono kese la woon ba léegi loo fa dajel dangay xam ni bànneex la nañ ko daan defe buñ la ko ni waxee te dañ daan wër gëléem walla dox nga xam ni yow la nga fa fekk lépp danga koy sant yàlla nga waajal wata zawadu yàllay wax ci kanam léegi mu wax ko fa inna xayra zaadi taqwa mooy rafetal jikko ji mala la waxoon taqwa bii jiitu fa inna xayra zaadi taqwa booba rafetal jikko la wa taquuni mooy na ngeen ma ragal nag ñaari taqwa yi dajale ñu ci aaya boobu booy dem fexe ba am conscience am sobriété am courage am équité mooy xayru zaat yóbbaal ba daal la ëpp mooy loolu wattaquuni yaa ulil albaab door a ñëw na fan fànne mooy ñun ñëpp kuy xalaat rek ku am conscience di xalaat rek ci ulul albaab nga bokk ba wa ma tafalu min xayrin te ngeen yëg ni lu ngeen fa def na yiw gis nga yàlla def ni la ngeen fay def ci màkk na lépp di yiw ndax maa tafalu min xayrin lu ngeen fa def ci yiw yaalamuhu llahu yàlla dina ko xam wa tazawadu na ngeen wut yóbbal bu ngeen yóbbaale bu ngeen di dem màkka waxul nga dem ku ne nga laaj ko ni ko lu ma yóbbal de lu may yóbbu bëggul boobu moo tax mu ni inna xayra zaadi yóbbalu kuy dem fenn ku mu rawatina màkka at taqwa mooy am éthique morale fooy dem rek yóbbaale fa discernement sobriété courage ak équité loolu muy gën ji yóbbal fu nit di dem na ko yóbbal wate yéen nag yaa ulil albaab yéen ñi am xel yi nag ittaquuni yéen na ngeen teet sama sànj fexe ba du ma dajeeg ak mer day ñëw li taqwa éviter ak taqwa baatu ñaari baat la am ñaari firi la am dama la bu dee laazim bi taqwa nafsi la jikko ju rafet lay doon fu mu nekk mutaaddi éviter lay firi moytu ci olof moytul yàlla ittaqillaha mooy moytul luy waral sànjuk yàlla bu ñu paree di lañ ko seet tafsir bi ñun rek moomuñu ko may bañ ñu def ko sunu daaray bopp ba ñiñ koy bokkal du ñu mën a matal nit koy suivre fi mu toll dégg nga gis nga yaram li ko yàlla sant lépp da ko wutal béréb wutal ko jamono xol nag ak ruux li leen yàlla sant wutalu ci lann béréb ak jamono da leen ni toujours nañ ci nekk rek moo tax aj bi ci yaram yi def moo am ashhurun maalumaat moo am mawaqit maaluma ذو الحليفة لتيبة للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليماني آتي هاوي فاق du loolu lañ leen wax ni la mooy maxal yi ngay aje ji ñu wax la ni ashhur yi it ngay aje ji waaye arwaax yeeg kulub yi nag al azminatu kulluha lahu miqaat wal amakin kulluha arafat gis nga arafa تأت بكلك عرفة بيورس الروح حج القلوب موي الأكوف في حضرة اللام لغيوب لولو حج القلوب موي فخ بقت خلي سختي حضرة اللام الغيوب borom kifaaya foog naa ni ñun moom la ñuy jàng sax de waaw foofa la ñuy jëlee lu ñu doy ñun arraxibiina fi ma yahdina ila xadrati allaamil xuyub mooy xadratu rabbil alamin loolu la bëgg ñu sax ca sarmadan ala dawaami nag ala mamarri layali wal ayam bépp waxtu laylatul qadri la war a doon ci kooka bépp barab arafa la war a doon ci kooka toujours day teewlu jamaalullahi fi zaatihi am na ko ni fi kulli xalqihi sax la cheikh na tijaani wax fi kulli xalqihi waaye boo ko mën la gis fi kulli xalqillaahi dee ko teewlu fi zaatika lawla shuhudi jamaalikum fi zaati ma kuntu arda saatan bi xayaati loolu la ñuy wax ñoom mu ne budul woo nag li may teewlu buute borom bi subhanahu wa taala ci sama jëmm nee na kon dund gi may dund du ma ci am satisfaction benn yoon ma laylatul qadri almuazzamu sha'nuha illa ida غمرت بكم أوقاتي nee na laylatul qadri bi gaa yi wut te mu màgg lool man du ma yëg ni dund naa ko ludul bu ma fekke samay temps yi ma am yep dama ko dépenser ci diko dunde jaamu la inna muhibba idha ida fil hawa wal hubb lam yahtaj ila miqati wal hubb mafuulun maa inna muhibba nena kisab إذا تمكن في الهواء بدي تفعل جدا فصح passion والحب موك تفعل جنو عند دف لم يحتاج إلى ميقات بصح لو وقبني بي تلي يجل تفعل دو ميقا محل دو زمان kon man farada ala qalbihi xajja alxadrati ku faratal ci sa xol ni alxadratul ilahiya bii ren di ko aj fal yalzamil adaba na nga taqoog yar ya fawar wa nadara wa nadrata ak xalaat ya cawar wa sukuuta ak noppi ga fawar wal fikrata ak xalaat ya nga fawara xalaat وخشعت الأصوات للرحمن بفنيوي فلا تسمع إلا همسا بغا خمني بونيوي وخصخ دوت أكو صخلا فور جانج دنجي ميديتي رك خم وما تفعلوا من خير نك تلونغن دفتي يوك du nëbbatu yàlla xamnako kon bo ñewé ci xadra bi laa rafasa wala fusukha wala jidala wala miraa ci xadra bi bu fa rafas am moy waxi mbet bu fa katchor am moy wax du lay génne ci li aqida bi ngeen am ولا جدال بفورنتك سمرب ولا مراء بولن فيينت ندخ لو دفتي جن تي مبنى الطريقة لي باز بنيو تبقى طريقة موي الرضا والتسليم الرادي لا يجادل ولا يماري surtout ki def taslim yow dañ la ni d'accordal ci li yàlla dogal agréé ko amatu lolo xulo te lolu moy mabna tariqati moy mabna hadrati wa tazawadu nag mooy adamu nazari ila siwa bul xoolati keneen yóbbalul ci yëg ni borom bi dong moo doy bul xoolati assiwa fa inna xayra zaadi taqwa te jimaul taqwa mooy muxaalafatul hawa gis nga ak taqwa bi ci boole ñaar yépp teet sànju boroom beeg rafetal sa jikko mooy nga wuuteeg sa bànneexu bakkan boole ko mahabbatul mawla sopp yàlla kese loolu mooy taqwa ulil albaab nag أولو الألباب موي الذين صفت مرآة قلوبهم فأبشروا الرشد والصواب نيغا خامني سن مرآة قل ياغي واخ ياغي واخ كارت ميموار خاوما موي <laughs> نيغا خامني موي سن سل سن قل سلنا لا mbëg ci laab gak sell ga bu ñu xoolee njub lañuy gis ak yoon wa billahi tawfiq yàlla nañ ko yàlla defal yàlla di yëgle ni aj terewul def commerce ndax aljaahiliya dañoo amoon ay marché ay luuma yoo xam ni ci mawasimul xajji lañ leen daan sam di ci jëlee seeni dund bi lislaam ñëwee ñu ni lépp yàlla la war a doon ñu ni waaw demati di wut commerce nag est ce que du waral bàkkaar ñu bañatee def commerce boobule yàlla ne len aha kan continuer leen laysa alaykum junahun yen ñi aj bu ngeen ñewé ben bakar amul ci yéen an tabtaqu bi ngeen armalee aj ngeen boole ko di sakku fatlan ngeen lu min rabbikum ci sen borom ci mawasimul hajj loolu du ngeen ci am bàkkaar bu dee aje leen indi woon ngeen boole ci def commerce bu dee aje leen indi woon ngeen boole ci sàkku fatlan min rabbikum def ko wa fil axirati alaxira it la fay digge yow dong koy mën a maye ni jàkk ci sa kanam nga am ca xuurul ayni am ca château ya ngay joxe ak ngërëm sa sa ridwaan sa ngërëm lépp loo fay joxe te sag mbaax nga koy joxe nga jox ñu ko it alaaxira waxinaa boole ko nga fegal ñu adaaba naari lii mbugalum safara te mooy nga jéggal ñu far sunuy bàkkaar sidna alin karamallahu wajhahu nee na الحسنة في الدنيا مم مي المرأة الصالحة نانا كو يالا جوخ سخنا سو يو باخ يو باخ اك لمو امبو ييب نانا جوخنا لا يو ادنا ني نيكو الاخره نك موني الاخره نك موي nga am ci al hurul xisaan jigéen yi ajjana ya ini ci àddina mooy am soxna su bon nee na soxna su bon moom nee na mbugal la ci àddina yàlla mooy al ilmu wal amalu bi bu fi yàlla xiir nga am xam-xam boo xamee yàlla jëfe ko jaamoo ko nee na jox na la xasanu dunia wa fil axirati mooy mu dugal la àjjana azabu naari bi ngay ñaan yàlla musal la ca mooy mu sàmm la ci ba doo topp sa shahawaat ba ñu lay xiir ci az zunub yoo xam ni da lay omat jëme safara yàlla nañ ci yàlla musal ulaayika yàlla nee na ñiy ñaan ñaan gii matale yi wi àddina ak alaaxira lahum nasibun dinañu am cër bu rëy boo xam ne mimma kasabu ci lañu doon fàggu ci yiw lañu koy jële yàlla dina leen regle regle bu rafet wallahu te yàlla sariixul xisaabi ku gaaw ne muy regle ay jaamam la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 di weeru njëggal di weeru njot ci safara yàlla nañ ko defal yàlla yàlla may ñu fadl zamani wal makaan ngëneelu jamono bi ñu toll muy weeru koor ak ngëneelu barab bi ñu nekk di barabu gaay yàlla yi ñu nekk ci ëttu Mawlana Cheikhul Xalifa radiallahu ëttu Mawlana Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu ak ëttu seen jaboot yu tedd yi ñu nekk ndoon Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di jël nuyoo waa daara ji fi teew ak seen ndokkeel ak seen ziyaar di ko teg ci sa loxo mu yéeg ba ci képp ku la yilif ci mageen aju ci Mawlaay Cheikh Abdoul Aziz Tijaani si Maktoum aju ci Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Mansour borom daara ji aju ci Mawlaaya Cheikh Mouhamadul Moustapha mu yéeg ba ci képp ku la kuy sa kilifa ci njureel tàmbalee ko ci xalifa bi Cheikh Aboubacar Mansour ak rakkam Cheikh Alhaji Malick ak seen rakk yépp ak seen rakk ji nga xam ni moo nekk ci daara ji di sëñ Babacar Abdoul Aziz kon nuyoo daara ji ak seeni ziar ak seeni ndokkeel ci kilifay xadara bi ñu ngi koy teg ci sa loxo ah, dafa mun la ñàkk rek ni ñu ko daan defe bi ci dundu góor gi ndax daf ñu waxoon ni prix mi daal bëgg naa ngeen organiser ko bàyyi ko xel mu bañ nekk rek prix mu nit ñi dajaloo daal di dem waaye na nekk prix moo ni day nekk fàttalante eh, nekk njàngat nekk itam minbar boo xam ni yennati masala yi nga xam ni sax léeg-léeg dana leen sonal ngeen man fa daje mbir mi jeexee ngeen waxtaane ko loolu nag ñu ngi lay xamal ni ñu ngi dox nii ci daara ji macha allah ba fi jógeeg léegi nag dara taxawu ci dara soppikuwu ci na mu ko daan doxale yaa ngi ñëw di teew di àndandoo ñun di ko doxale noonu yàlla yàlla saxal loolu te yàlla kàttanal la yàlla dëgëral la dëgëral say bag dëgëral say kilifa kàttanal leen xanaa sant rek muallim ci sa kanam ci niñ ko daan defe ñaanal ko yàlla tawfiq ndax wax dëgg yàlla prime yi mosul ñàkk solo waaye gën naa animé ci anam goo xam ni wàccam la ndax dafa moroomanteeg daara ba lu neex waaye mu laaj ko ci façon boo xam ne sax léeg-léeg waaye yow mi toog di nga xaw am kersa waaye moom dana ko comprendre kon nag ñu ñaan yàlla nga ñaanal ko ci barke kilifa yi nga fi teewal yàlla guddal fanam defal ko wér sant waa daara ji gërëm leen ñun ñuy sëq liggéey bi ñoom sëriñ Xasan sëriñ Sidi Ahmad tabaarakallaahu ak ñoom Pape Xaali ñoom sëriñ Xalifa Ñang ñoom xaaji Fodé Touré ñoom xaaji Pape Diop noonu lañu ko sëriñ bi sante woon ñu di ko doxal Abdou Aziz Thioub ba léegi ñu ngi koy doxale noonu ba ci kaamil bi nga xam ni dañ koy jiital ñaanal xadra bi alxaaji Medoune Thiam di ko saytu kon nag ñoom ñëpp ñu ngi lay wax ne nañ daan taxawe taxawe nañ noonu nañ ko daan defe fii xayaatil walidi yal na yàlla dolli leeram fu mu tëdd lii rek moo ko ñoroon xale yi nañuy jàng nañu am yar amul woon beneen soxla xale yi nañ jàng nañu am yar kon nag bu fi jógee lii continuer dafa bokk ci ay xasaayisam waa ci moom ndigalam du màggat ndigal la mu joxe woon insha allahu day dund day bees ba faaw ak si mbokk mii di xalifa Babacar Lise kon nag comme tislaan jaa ngi dugg te alxaaji Pap Fay alxaaji Njaase ñu ngi lay seedeel ñu ñoo ñoom ñoo ko ànd ndax góor gi def ni woon xadara bi benn xadara la ku ne am na néeg buy fanaan nag waaye benn xadara rek a fi nekk waaw ñoom ñoo koy àndandoo ñun ba ci zawiya bi Seydi Hadj Malick ñu fay jógee di ñëw tabaarakallaahu loolu day wane ni nam ko bëggee woon rek noonu la nekkee kon nag yàlla yàlla doon li tawfiq yàlla mottali ñu yéen yëpp ñu ngi nuyu sëñ Babacar Cissé bu baax di ko ziar di ko masaw tabaarakallaahu teewaay bi rafet na ci bég nañ ci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 ñu ngi nuyu mboolem daara ji nuyu waale képp koo xamante ni yaa ngi jënkonteeg euh, këri mi di ko déglu moo xam ci adduna bi waaye mën a jóge foo koy dégloo rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jotal nuyoo xadara bu tedd bi jiital ci imam Cheikh Tidiane Wade tabarakallahu kaddu yi itam ni ko Aboubacar oustaz Aboubacar loo waxe noonu rek coup d'envoi la jëm ci tafsir bi ni ko sunu wayjur Cheikh Abdoul Aziz daan euh, taxawoo ci yéenay kilifa yi ñu jiital nuyoo xadara bi nuyoo xalif général de Tidiane Seydi Aboubacar Sy Mouhamadou Mansour mbooleem njaboot gi mu tënk sunu bàyyi alxaaji Malick Abdoul Aziz sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz mbooleem banqaas yi séq xadara bi doore ko ci banqaasu Seydi Jamil Seydi Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Mansour sëriñ Cheikh Tidiane Sy Mouhamadul Mansour Cheikh Seydi Cheikh Ahmed Tijani sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz mbooleem seen rakk yi ñoom la ñuy jotal rek seen nuyoo ak seen ziyaara ak seen jant ci euh, jataay bii nga xamante ni dafa nekk jataay bu wane li nga xamante ni mooy cëslaayal xadara Seydi Hajj Malick te muy xam-xam defe naa du doy ñu di ko wax moo ko indi woon ci gi jataay bii nu nekk moo taxoon Seydi Hajj Malick ñëw ci waawoon gi bu wax ni sama kër cës laa yele naa ko daara kon bu fi daara jógee danañ ko rek tuddee laneen daara jooju nag li koy melal mooy lii nga xamante ni tey mu ngi daje sëñ Abdul Aziz ci dundam mu jëloon eh, yéene ci saa yu jotee jataay bi ñu melal ko mu dund ni mu war a dunde yaakaar naa ni nekk na ko nekk na ak nun di ko dundal di ñëw di teew di ko doxal ànd ko ak waa ji su jotee te amul leen benn gàllankoor mu bàyyi lépp ñëw teew su dul loolu ñu defal ko micro wala haut-parleur bu yegg ba ci néegam fi mu toog ci néegam mu di ko toppaatu di ko dundal parce wéri wi màndargaam alquran la weer wi màndargaam wat matière alquran la wéri wi màndargaam mooy fexe ba bép dégg-dégg ñu war ko dégg ci biir bu ñu ko mënul sax ñu door jëm nañu mëni ñu jëm ko fexé dégg ko ndax mu mëno may leer-leer ci sunu dund leer-leer ci sunu jëfandiku leer-leer ci sunuy jëflante leer-leer ci sunu yoonu doxinu adduna yaakaar naa ni loolu rek mooy falsafa quraniya yi nga xamante ni tey ñëpp moom la ñuy ci jataay bu mel nii mu wëlbatiku nag sant imam nga xamante ni ci ni ko Aboubacar waxee dégg-déggam bu yaatu ak taxawaayam bu rafet ak xam daara ji ci boppam muy ñëw di ko jëflanteeg moom ba ñépp di sawar di ko fekk si ku ne di laaj laaj boobu euh, boo boo mën a génne rek am na mën koo dékku compétence su dékku ko te na mu gën a rafete ko defee kon ñu sant ko sant ko ci taxawaayam ak cawarteem ci lii ndax sëriñ bee ko ko santoon mu nekk ca mbuur di ko doxal sëyid sëñ abdul aziz bi mu jógee fii moo ko yebalaat mbuur mu ubbi jë daara ja musdajar xikmatun baliga bi ñu demee ba yàlla dogal fii ñu soxlawoo ku fi firi ñu nekk di werante ci ay jëmm jëm ju ne tudd nañ la ba ci yàgg jëmmi imam dox ci xel yëpp naka lañ ko tudd mu ni waaw këy moo baax fekk na ko ci mbuur waaye mu jël Pastef ni ko ah, jinne bu soxlaa daqaar ku yéeg dangay ngay daan yàlla dogal weeru koor ku ne mook nun fii nu bëgg nag woowaat rek waa daara ci taxaway bi woowaat len ci itte woowaat len ci gën namat nammat sunu xereñcu ci xam-xam bi len ci présence di tew ndax daara ji kat dafa am lu ko dundal ki jangale bu ko kenn fekk wul kenn du jang te it du sawar mm-hmm. waaye jàng si bu gisee ni njabooti daara ji ñu ngi ñëw ànd ak moom di teewloo ko xereñ lu jëm ci wàllu xam-xam bi dana ko sawarloo ñu woowaat leen ci taxawaay ah weer wii bërki démb ca jàkk ja wax nañ li mu laaj ci kilifa yi daan ko ci dénkaani ci taxawaay ci itte ci Pastef ci kenn ku nekk it nga xam ni ah taxawaay bi ñu la laaj mu war a nekk sa contribution ci xadara bi mooy loo dégg rek na la itteel lu xew nga fekke lu ñuy doxal nga bokk ca ña koy doxal defe naa loolu moom la daan ñaan di wax ni nañu dundal jàkka yi nañuy teew nañuy fexe di teew ci nawaafili nañuy fexe di teew ci tarawix nañuy fexe di teew ci jàng alquran nañuy fexe di teew ci zikrullahi nañuy fexe di teew ci jataayu xam-xam yi joxante biñ koy joxante moo xam débat yi moo xam lépp loo xamante ni dafa aju ci ramadaniyaat yi te moom moo nu indil baat bi ramadaniyaat mooy lépp loo xamante ni ñu ngi koy def rek ci biir weer wi te mu dugg ci dundal ko ñi nga xamante ni noonu la ko mag ñi daan dunde moo xam jëm ci conférence yi moo xam jëm ci table ronde yi moo xam jëm ci tafsirul quran yi moo xam jëm ci euh, luqutu ci xam-xam recherche yi bibliothèque baa ngi fi moo xam sax werante donte le imam nee na werante baaxul waaye werante ci xam-xam baax na ndax day tax xam-xam gën a génn. mun naa xasee baax na. yooyu yëpp. ji daal la ñu bañ waaye nee na munaqasha moom la ñu nangu waaw werante ndax lu baax la hmm. loolu moo tax daara ji tabarakallah kilifa yi joxe ndigal ni bu jotee nanu ñëw teew joxe ku d'envoi bi door nañ ko tey insha allah weer wi yëpp xëy na lu jëm ci wàllu programme mu yi keroog am na luñ ci junjoon lu ñàkk sëñ Xasan wan koo génnewaat ñu amit bépp mbégte ci teewandoo ak sunu kilifa gii di sunu mag mm. sëriñ Babacar Sy Cissé mm. soxna umul xayri ñu àndandoo ko ak waa daara ji oustaz Aboubacar wax na leen léegi ñoom ñi fi teew ak sax ñi ci biti ak ñi koy suivre ci seeni bureau ak ñi toog ci seeni salon di ko déglu ndax firi mi ñu bëri ñoo koy yàkkamti ndax macha allah imaam taxawaay bu am pasteef bi muy àndal ak nag leer leer bi ak surtout tegu gi mu tegu ci yoonu tegtalu kilifa yi ak xadara bi yàlla na ko yàlla gën a dolli wér te defal na ko ñun ñëpp mu sant waa daara ji yëpp jaajëfal leen ci taxawaay yi ñaan yàlla kenn ku nekk weer wi lépp loo ci njortoo yàlla rek lu kawee sa njort yàlla defal la te mu dellu lépp di ndam di xadara bi nu duggaale ci biir lamu xadara bi loolu daal la ñu amoon lu ñuy waaw waxtu wi waxtu wi la wax ni changé wul nañ ko daan defee insha allah bu nu dooree midi bu nu jàngee ba tisbaar danañ dog pour waajal waxtu wi bu nu fi jógee gannaaw ñu julli ba noppi danañ yëkëti benn ci téere mag ñi defe naa bi yoon ñu ngi jël kifayatu raxibin bu seydil haj malik pour fes ko yéene moom it jàngat nañu ko daan defee bu ko defee ba noppi nag defe naa ñaari programme yooyu la ci bis bi suñu demee ba génn ci programme firi mi ak programme jàngale mi dugg nañ ci guddi gi muy ramadaniyaat yi nga xamante ni moom lañu daan def te commission culturelle bi daan ko def ma jox si ne Aboubacar wala Mbaye Lo jaajëf ramadaniyaat yi bi mi ngi tàmbali le 6 avril 26 avril. waaw bu njëkk bi dafa am ay thèmes yoo xam nag dañ leen a jël ba pare mu am santra central al unwaan raïsi am ay ay ay anaawin farciya yoo xam ni moo ci jóge am na li ñuy wax manhajul quran fi tarbiya méthode bi al quran teg pour mën a yar doomu aadama loolu am na ñu cay intervenir. ku wax ustaz mohammed fayla mom moy wax ci alquran wa tarbiya alimaniya amna am keneen ku ñu wax ibrahim Mbodj ñu gën ko xam ci Baye Niass moom it dana intervenir ci alquran wa tarbiya alakhlaqiya axlaqiya yu am am solo amna am na keneen ku ñu wax Khalifa Kassam la dëkk ci fii ci xadra Cheikh mohammed Mansour moom it dana ci intervenir alquran wa tarbiya ijtimaaiya bu ko defee ki nga xam ni nag moom lañ pare ni guddi googu dars googu mu war ko teewe mooy sëñ Cheikh Mouhamadou Mansour wala bu mu yabal bu ko defee sëñ Mansour waaw sëñ Mansour bu sëñ Cheikh moo koy pare ni wala ku mu yabal mu teew ci turam bu ñaareel bi mooy aljalsa saaniya unwaan raisi bi موي الشيخ الحاج مالك سي ودوره في نشر الاسلام ناتم بو ام سولو نك آه. سيد الحاج مالك رول بي موجي با الاسلام ويسارو ني مو ويسارو دا نتي انترفينير خليفه جاي استاذ خليفه جاي في جيم وقتانه جهود الشيخ الحاج مالك التربويه العلميه التعليميه في النهضه الشيخ الحاج مالك ni mu fexé ba jàngalé yaré étape bu njëkk ba ca Ndar Oustaz Khalifa Ndiaye ci waxtaan ñaareelu étape darse bi Mouhamad Mansour Diène bu ak Oustaz Al Ousseynou Diène dana ci waxtaan ci juhuduhu ak al ak taalimiya fii Ndiarndé waaw effort yi Cheikh Al Hadj Malick fexe ba def ko ci ñaareelu étape boobu di Ndiarndé ci jàngaleeg yar Hadj Mansour dana ci waxtaan ñetteel bi suñu mbokk Abdoul Aziz Ndong Oustaz Abdoul Aziz Ndong dana waxtaan ak juhóolu Cheikh El Hadj Malick ak tarbawiya taalimiya fii Tiwaawan état bu mujj bii nga xam ni moom ci la defaree li mu defar muy Tiwaawan Cheikh bu bare dana ci waxtaan ki nga xam ni nag moo koy mooy présider guddi googu mooy Serigne Mouhamadou Mansour Sy Djamil mu Cheikh Mouhamadou Moustapha wala ku mu yabal ñetteelu jëlsa bi mu ngi nekk ci ci guddi fukkel ak juro euh ki nga xamni moy عنوان بيغا خامني موم لنج تي وقتان موي الشيخ الحاج مالك سي وجهوده العلميه في المسائل الفقهيه الخلافيه ام غا لول لو ام سورو الشيخ الحاج مالك داف دان قسم دان جيل اي ووتو يو بري تك تان تي بن Mm-hmm. bu ca tànnee benn nag la muy njëkk a def mooy argumenté ko mm-hmm. waaw léegi nag fiq comme dafa bëri ay wuute mm-hmm. am na masala yoo xam ne dafa tegu ci xam-xam Cheikh Al Hadji Malick fexe na ba segg leen génne indi moom la mu gisee masala yooyu loolu dana leer ci li ñu ciy waxtaane bu njëkk waxtaan bu njëkk bi mooy ak Cheikh Al Hadji Malick wa mawqifuhu fi zakatil fiq fi sadaqatil fiq moom Oustaz Abdoul Aziz Ba moo koy taxawee Cheikh Al Hadj Malick nan la gisee azaka muuru koor am ngeen azaka muuru koor ba léegi bari na coow waaw ca xadra moom di góor gi daan wax rek lu ñu defit am na fuñ ko teg lu ñu yàq kenn la muy def waaye li ñuy defit nag am na fuñ ko teg bu wér ndax man di gis rek gis nañ ko waaw ñaareel bi ku ñuy wax oustaz Habib Kébé bu Cees mooy def ijtihaadu Cheikh Al Hadj fi masalati subuti sawmi bi silki almaaruf bi telegram xam ngeen ni ñu jamono Cheikh Al ay whatsapp ak yi amul woon waaye telegram moo amoon waaw weer nan lay saxe ci bu soree sori ci Fuuta yónnee télégraphe Tiwaawan ni gis nañu weer yi télégraphe boobu nag ñu war cee sukkandiku woor Cheikh Al Hadj Malick argumenté ko teg ko ci xam-xam loolu bokk dana ci waxtaan bu ñuy wax Mouhamadou Habib waaw comme li xew ci weer bi nii rek. waaw moom mooy suñu àtte ci weer bi nii ci téléphone bi ci waaw am na boo xam ni. Hmm. Euh, mi ngi nekk le quinze quatrième mois deux mille vingt deux. waaw ah. muy Cheikh al euh, mooy Serigne Sidi Ahmad hmm. moo koy waxtaanee Serigne Hassan si moo koy présider. من يوحي جهود الحضرة المالكية في التعايش السلمي في السنغال حضرة الحاج مالك نان لا بارتيسيبي تي دوندو جام كيغا خامني موم لا نيت ني دي دوندي باغا خامني واسو دوني كو دوني كو دوني كو نيمي كو تي ميليي بو نيوي داجي فيك سيرير توكلور ني كالانتي دي تونيانتي nga gis chrétien musulman amna deuk yo xam seigne moustapha mi xamna ci dara dem na fa day côté beulé dañ nan chrétien ya fa nek côté yi jullit yee nekk ñiy def gàmmu chrétien yi ñëw wetti di leen waaw loolu dafay participation bu am solo bu ci xadra Cheikh Al Hadj Malick def loolu lañ bëgg sëñ si di feeñal ko ci jotaay boobu ki nga xam ne nag mooy parrainé guddi googu mooy Serigne Babacar Sy Al Amin ak ñoom ñaar ñoom xam naa Serigne Babacar Cissé kon day wutu yëpp bu ko defee bi ci topp muy jataay bu mujj bi mooy pa oustaz Pape Xaali bi nga xam ne mooy mooy coordonné liggéey bi moom moom moo koy taxawee mooy ijtihaaduhu fi masalati zakati fuuli Soudan mooy yittewoo ki Cheikh Alhaji Malick yittewoo gerte ndax dafa amoon wuute ci ñu ni gerte azaka waru ci Cheikh Alhaji Malick ci yitteem mu ñëw xool gerte jël doom bi xool ko xool ko natt ko ci xam-xam hmm. jokkoo ceeg ay borom xam-xam ci bitim réew hmm. ba gis ni ndekete gerte kon azaka war na ci hmm. mu argumenté ko ci xam-xam loolu nag la oustaz Pape Xaali war a indi leeralante ceeg njaboot gi insha allahu taala te guddi ga moom la pare ne nag seen Cheikh Tidiane Mouhamadul Mansour moom mooy tëj li nga xam ni mooy layaali layaali yooyu le di layaali mubaaraka yàlla nañ ko fekkee jàmm ñu ñaanit ñëpp fekkee si ko ndax góor gi def daan wax ni aw yiw dañ koy màng mm. waaw te yooyu yëpp ci xeet yiw ñu bokk ci xadra bi la ku ko man rek nga ñëw teewe ko fekke ko ndax njëriñ ndax lii ku fa teew dina am lu mu la fàttali loo xam ni fàtte woon nga ko am tiit loo xam loo xam ni loo xam ni xamoo ko woon kon jar na dem ñu yebale ko foofu waaw ñi ngi sant itam ci ñi nga xam ne télévision yi fi daje te di ko jël di suñu mbokk asfiya yi suñu mbokk malikiya yi suñu mbokk malikiya suñu mbokk Mm.